أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن هذا اليوم يوم محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاء جبريل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول أتدري كيف رفع الله ذكرك قال الحبيب مصطفى الله أعلم يا جبريل فقال الأمين جبريل إن ربك يقول لك قد رفعت ذكرك بأن اسمي لا يذكر إلا ومع اسمك لا يذكر إلا ومعه اسمك لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شفيعنا بفضلك في غد فلقد علمتك منعما مفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko xam ngeen ne jamono yi nu toll yëpp yahuudi ak nasaraan yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñi ñoo ngi bind ci Muhammad di jouer ci moom ay film di def ci moom ay dessin di wax ci moom ay wax te dara waralu ko lu dul ay études yu américain yi def ak ay sondage ne 2050 insha allah l'islam mooy nekk première religion ci monde bi rawatina Amérique bi loolu amee xam ngeen ne borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran la tajidanna asadda annaasi adawatan lillazina amanu alyahud borom bi nee na di nga fekk ñi gën a bañ jullit yi ci kaw suuf mooy yahud yi ci la benn waay jóg bu dëkk Israël cosaanoo fa dëkkuwaayam nekk États-Unis d'Amérique mu yalwaan ci biir États-Unis ba mu am cinq cent milliards dollars ak plus mu ut turub bi gën a yées ci États-Unis mu séeloo leen film yonent yàlla Muhammad pour tooñ jullit yi waaye li ko waral du leen lu dul gis bu ñu gis ne jullit yi dañoo nasax gis bu ñu gis ne jullit ñi dañoo yàccaaral moo tax ñu romb ñëpp dem ba ci yoon ci yàlla Muhammad di jouer ci moom ay film dugal ko ci internet bi def ci ay dessin yu doy waar tasaare ko ndax yëg nañ ne l'islam moo ngi ñëw insha allah waaye mbokk yi ndax film yooyu ak dessin yooyu ñuy def ci Muhammad ak wax yu ñaaw yooyu ak yàccaaralu jullit yi ndax day wàññi ci Muhammad dara ndax dafa am lu mu ciy wàññi du ci wàññi lu toll na tarfatal ayn ndax moom mooy moom ba pare yàlla def na ko kenn mënatu ci dara huwa muhammad benn bis jibril ñëw na ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yow yonent yow jàmm borom jàmm mu ngi lay yónnee nuyoo jàmm mu ne ndax xam nga li tax sa tur bi mu nekk tur bu yëkkatiku te dootul fay yonent bi ne ko yàlla rekk moo xam mu ne ko kaw suuf kenn dooti fi waxati laa ilaha illa allah lu dul danañ ci sës muhammadan rasulullah kon yont yàlla muhammad mi yàlla wax ci ay mbiram démb balaa tey ki nga xam ne même foofu ci États-Unis d'Amérique benn waay bind na fa benn téere tuddee téere bi alxaaliduuna mia téeméeri nit ñi nga xam ne seen tur dafa sax ci histoire téeméeri nit ñoo xam ne même bu ñu deewee seen tur a ngi fi téeméeri nit la waa ji tànn lan la wax waa ji di jullit de ab nasaraan la waaye nee na azamuhum muhammad ki ci gën a rëy mooy yonent yàlla muhammad te foofu ci biir États-Unis lañ ko seedeel loolu te ñi ko seedeel duñ jullit mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam jullit yi ñoo xamul moom mooy kan jullit yi ñoo ko xamul moom yonent yàlla muhammad keroog ba mu juddoo keroog bi Amina géntee ne day am doom mu yëg benn leer gu génn ci biiram leer goo xam ne nit na satoy Kisra lan moo xew mooy mu am doom moom Amina képp ku am doom lan moo ciy cosaan mooy sa baay mooy jël këyit registre fi nga juddoo mu dem ba mairie ba mu déclaré la waaye keroog ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddoo ana ban baay moo ko déclaré ndax fekkul baayam ci kaw suuf kon ban baay moo ko déclaré kan moo déclaré yonent yàlla Muhammad ci registre buy wane ne juddu na bisu sàngam diw mooy baayam diw mooy yaayam nationalité nangam la yor ki def loolu keroog mooy sunu borom subhanahu wa taala ca lawhul mahfuz yàlla moo déclaré yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu borom moo dajale yonent yi mu ne wa is axada allahu mithaqa annabiyin lama aataynaakum min kitaabin wa hikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminunna bi wala tansurunnahu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu juddoo wala balaa muy gane àdduna la yàlla dajale yonent yi ca mala'ul a'la ne leen am na yonent boo xam ne dinaa ko yónni ndax su ñëwee dinaa ko jox téere ndax su ñëwee yéen yonent yi yéen ñi yàlla yónni ndax da ngeen ko gëm wala du ngeen ko gëm yonent yépp waxuma nit ñi sax ndax nit ñi moom ay ordinaire lañ ndax nit yi ñi ci gën mooy yonent yi yàlla dajalewul sax ñu ndaw ñi waaye yonent yi la dajale ne leen ndax di ngeen ko gëm ndax di ngeen ko dimbali ñoom ñépp ñu daal di gëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam qaala aqrartum wa axastum ala dalika isri qaalu aqrarna qaala fashhad wa ana maakum min alshahidin ban seede moo gën a rëy ginnaaw yonent yi yàlla di seede ci nit ban seede moo gën a rëy boobu kon ku yàlla seedeel ay nit ñëwaat waxuma la sax ay jullit waaye ay yéeféer te xam ngeen ne nit doo wax ci sa noon jàmm koo bañ doo wax ci moom lu baax mukk te yàlla wax nañu ne yahud ñoo gën a bañ jullit ci kaw suuf bu leen fàtte ne yonent yàlla muhammad yahud yee ko posone woon ba ulama u siira wala hadis ñuy werante ñii naan lekk na ñii naan lekkul ñii dañu ne keroog ba yonent bi tàllalee loxo ci pooju xar mi bëgg ko lekk yàpp bi dafa yuuxu ne ko yaa rasulallah laa taakul minni li annani masmuma ñeneen ñi ne déedéet lekk na ndax keroog bi mu nekk ay sukuraat mi ngi sentir poison bi di dox ci kaw yaram bi bu leen fàtte ne yonent yàlla muhammad yahuud yi tabax nañ jàkka sax invité ko pour mu ñëw yàlla ne ko bul dem bu leen fàtte ne yahuud yi njabar nañ yonent yàlla muhammad yàlla wàcceel ko suratul falaq ak suratul naas pour njabar gi day kon yahuud yi démb yi ñoo fi nekk ba tey amul changement yàlla moo ñu ko wax wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yàllaay ki ko seedeel yàlla moo ne wa ana maakum min ashahidin yàlla moo ànd ak yonent yi di seedeel yonent yàlla muhammad al mawla yatakallam fashhad wa ana maakum min ashahidin ku yàlla seedeel ana kan beneen doomu aadama mooy taxaw di seedee te sax muy doy kon wax ji wala leeral du ci jëriñ dara ndax yonent yàlla muhammad lim doon am am na ko ba pare arab yi nee nañ alxaafilatu tamur wal kilaabu tan yan ba xaj yi dañuy romb wala caravane bi day romb njëgg mi day romb xaj yi mbow dootul tax njëgg mi deltu ginnaaw muhammad dem na ba pare julli yi kay la ñuy wax seeni mbir ndax ñoom xam nañ li ñu am wala xamuñu ko muhammad romb na leen ba pare yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam askanam fi mu juddoo diggante ndey ak baay ñépp xam nañ ko te yonent yi amul yonent boo mën a lim juróomi maamam ku dul muhammad moom rek nga mun a wax muhammad ñu ne la ibnu abdul muttalib ibnu abdallah ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abdul manaaf ibnu qusay ibnu hakim ngay lim di lim ba egg ibnu abdnan ibnu nazar ibnu maadin ibnu adnan fu mu bokk min ismail fu ismail bokk ibrahim kan mooy ibrahim xalilullah muhammad rek moo am lool kon moom du ku réer koo xam ne mën nañoo wax ay maamam am na ku ci defoon sàngam wala ay wala ay déedéet moom xiyaarun min al xiyaar yàlla moo ko tànn ci biir ñu tànn tànn téefi la yàlla tànn yonent yàlla muhammad ba mu rawee jamono bi yàgg na kenn xamul kañ la moom mooy nettali moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci boppam mu ne benn bis jibril ak mikail ñoo ma dikkal ñoom ñaar biñ ñëwee dañ maa fekk may nelaw ma gént ci biir nelaw gi xam ngeen ne yonent wala yonent yi seen bët yi mooy gëmm waaye seen xol yi du nelaw ñoom yonent yi seen bët yay gëmm waaye seen xol yi du nelaw lépp lu yonent yi gis dëgg la ruyal ambiya wahyun yonent yi seen gént waxyu la laa siyama ida kaana ruya xayrul anbiya rawatina nag bu fekkee muhammad moo ko gént nee na bis jib bis boobu jibril ak mikail biñ ma dikkalee jibril moo ne mikail zinhu yaa mikail peese ko jëlal muhammad nga teg ci balance nga jël fukki nit nga teg ci beneen balance zinhu ya mikail bi ashara rijal mu ne fa rajaxtu bihim bi mu jëlee fukki nit peese ma ak ñoom mu ne ma raw leen ma gën leen a diis ma daaneel seen poids fa qaala jibril zinhu bi mia wàcceel fukk ñi yégalal téeméer mu ne fa rajaxtu bihim ma daaneel leen man muhammad mu ne ya mikail zinhu bi alf yokkal junni nit mu ne fa rajaxtu bihim bi alf mu ne fa rajaxtu bihim lan la jibril wax mikail yow mikail noppalal sa bopp wallazi baasahu bilhaq law wazannaahu bi ahli lsamai wal ardi jamian la rajaxa bihim muhammad bu ñu jëloon asamaan ak suuf ñi fa nekk asamaan ñi fa nekk suuf ñi fi nekk ñépp ñu peese leen ak muhammad muhammad a leen ëpp poids sallallahu alayhi wa sallam kon kooku ñun ñoo xamul mooy kan waaye yahudi ak nasaraan xam nañ mooy kan looloo tax ñu naan li ñu gën a ragal tey ci monde bi mooy ku mel ni Muhammad dekkiwaatoon ku mel ni Muhammad moom la ñu ragal wala mu yor programme bu mel ne bi Muhammad yoroon aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان هذا هو محمد يا الدنيا هذا هو محمد يا روسيا هذا هو محمد يا أمريكا هذا هو محمد يا فرنسا kii mooy muhammad ki la yàlla subhaanahu wa taala giñ ci dundam ki la yàlla laabal xolam bi yàlla mu ne maa kazaba al fuaadu maa raa ki la yàlla setal ay noppam mu ne qul uznu xayrun lakum kii la yàlla subhaanahu wa taala setal léppam hatta làmmiñam maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kii la yàlla setal lépp jikko ji wa innaka la ala xuluqin azim amul lenn lu des ci muhammad lu dul da ngeen fekk ci alquran yàlla wax ci loolu yàlla wax na ci dundam yàlla wax na ko baal naa la sax say bakkaar yi nga am ak yu amagul yàlla ubbil na ko inna fatahnaa laka fathan mubina li yaxfiraka allahu ma taqaddama min zambik wa ma taaxar yàlla ubbil na ko lépp lu mu soxla woon yàlla defal na ko yàlla baal koy bàkkaaram yu njëkk ak yu mucc lan moo des mu ne wa yutimma nicmatahu alayk wa yahdiyaka ila siratin mustaqim kii la muhammad moom la yàlla wax ne ku ko topp jub wa in tutiuhu tahtadu ana keneen kii la yàlla wax ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kii la yàlla wax ne ku ko topp dugg aljanna wa man yuti ir rasul faqad ata allah kii la yàlla wax ne ku ko topp topp nga wa man yàlla wa man yuti ir rasul faqad ata allah ku topp yonent bi rek topp nga yàlla moom la yàlla wax ne ku ko toppul doo dugg aljanna ëllëg wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam kon kii fan la tàmbalee jullit yi mooy keroog ba ñu juddoo kenn ku nekk ci ñun bi nga juddoo moo xam sa papa am na xam-xam wala amul xam-xam wala imaam moo lay tudd bi la imaam fabee di nodd ci say nopp bi mu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah turukan lañ ci teg wa ashhadu anna muhammad julli jot ñuy nodd léegi bi ñu waxee ashhadu an laa ilaha illa allah ci turu muhammad lañ la woo suñuy liqaam ci turu muhammad lañ lay woo sa julli du wér lu dul ci biir julli gi nga tudd turu muhammad ci sa taaya nga war a dugg bàmmeel ñu indil la jëmm muhammad ne la maada kunta taqulu ala haada al abdu muhammada muhammad moom nga doon dégg loo doon wax ci moom kon jot na bis ni ki tey julli di delluwaat xam yonent yàlla muhammad li war a lii lépp rek mooy julli di ñàkk a roy gu ñu ñàkk a roy yonent yàlla muhammad ñàkk koo xam giñ ko ñàkk xam ay simbkat lañ xam ay mbër ay footballeur ay ay ay loolu la ñu xam waaye boo nee Muhammad limal ma soxnaam yi limal ma doomam yi limal ma waa këram ñu ëpp ci ñun kenn du ci wax ñett ñun li ñu xam ci Muhammad rek mooy eskay Makka la juddoo Madina la faatoo daal di fettasu sànni ay sarax wala ñu lekk suñuy cere def ko ay gàmm wala def ko ay màggal après daal dem suñu yoon fekk muhammad weesu na loolu weesu na loolu muhammad seydul xalq mooy sang bi yàlla jox caabi ji nga xam ne ëllëg aljanna moom la ñuy jox caabi ji jàngeen ci hadis bu yonent yàlla muhammad dekkee jiitu jëm aljanna bu fëggee buntu aljanna ridwaan la fay fekk mu ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax balaa may ubbil bunt bi balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare kooku kon jullit ñi war nañ koo xam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله